ñu commencé téere bii di xisal arf fi fanni sarf muy téere bu am njariñ mën nga wax ne xam-xam yi aju ci wàllu sarf yëpp jàngal na ko uslubam nag naqari naa dégg euh, waaye boo ko teewloo rek di nga ko mën a takk ndax sarf moo mel noonu moom ci boppam moo yombut di ko taarif yi ustaaz bu mag buñ xam ci wàllu luxo kuñ wóoru ci arab ak mooy Cheikh Ahmad noonu la tudd bun Muhammad bun Ahmad alxamalaawi ñu askane ko dëkk boobu di munyatu xamal moo tax ñu ne ko xamalaawi foofu lañ ko askane arab la nag waaye nag ku man arab la yëg ci arab yi la bokk waaye ku man arab la moo defar téere bi tuddee ko chizal arf chira mooy cuuraay al arf mooy xet maanaam xet gu neex fi fànni sarf ci xam sarf ci wàllu sarf dëgg-dëgg bi ku ko dégg man ko xam ko ah sa xol dana sedd ba mel ni dañ koo cuuraay ci xam gi nga xam sarf ni mu tuddee téere turu moom wuyu na borom mooy chizal xet gu neex fi fanni sarf ci wàllu sarf maanaam lu sedd xool rek ci sarf la bëgg wax ne moom laa leen indi al muqaddima li mooy laytaay bi borom xam-xam yi baaxoo nañ balaa ñuy jàngal dara ñu lay taayal ñu fànn bi ñuy wax lan la loolu seen baax la مقدمة من ميزك جانا لما الصرف لن مو يصرف ويقال داني وحلو ينك التصريف داني كتب دي الصرف داني كتب دي التصريف موي صبي بات دليكو تي مانا يبكو تي مانا maanaam jëlee ko ci maa ngi jëm di wax maana jëlee ko ci tëggin yóbbu ko ci yeneen tëggin ngir maanaa yim ci soxla moo gën a feccee ko ni borom téere bi jàngale ki jàngale mi xaw naa fasu waaye boo ko déggee gis ne xam-xam lépp mu ci biir woo moom sarfu luxatan ci langue arab ak taxyiru mooy firi soppi soppi loolu lay bar bi firi ak sarfu wala tasrif mooy ak taxyir soppi wa minu ci lañ jëlee tasrifu riyaax yaa ngi def tasdiq waaye tasrif la tasrifu riyaaxi ay taxyiruha soppi ngaraw yi te léegi ngaraw yu sedd yu tàng yu nangam kon baat bi li ñuy firi ci loxo mooy at taxyiru changé pourtant la ñuy firi ci loxo it jege na la muy firi ci ñooñ fànn di saf واستلاهن تيك هيونو مانام لا نيون صرفو ديبو تيكو فيري التصريف دا فام نياري مانا مانا علمي اك مانا عملي واستلاهن لن ديبو نا بمانا عملي شي مانا جف نانكوي ديفه موي لان موي تحويل الاصل الواحد nga soppi benn cosaan ila amtilatin jëm ci ay misaal muxtalifatun li maanin ngir bëgg ay maanaa maqsudatu ñuy jublu laa tuxsalu mënuñu am maanaa yooyu illaa biha lu mooy ci misaal yooyu loolu mooy noonu lañ ko defee aslu tey nga jël baatu kataba kooku mooy aslu kalima bi ñetti baat la wala nga ne aslu bi masdar ba la kitaabatam su ko defee muy firi bind nga bëgg ci maanaa bind na nga tëgg ko ci kataba gis nga aslu bi ni nga ko changé andi ko ci beneen misaal parce que maanaa bi soxla ci misaal boobu nga ko mën a amee nga changé ko yóbbu ko ci yaktubu gis nga baatu kitaabatu ni nga ko jëlee andi ko ci maanaa yafulu ndax lan di andi ko ci misaalu yafulu yóbbu nga ko ci beneen tëgg parce que maanaa boobu foofu nga ko mën a amee nga jël ci uktub ko gaat ko kaatibun maktubun maktab maa yi nga soxla yëpp teggin yooyu ñoo la ko mën a jox kon nii lañ koy liggéeyee liggéey bi mooy lan sarf boo koy def da ngay jël benn aslu nga yóbbu ko ci ay teggin yu wuutee loolu la na mu ci am siré yi teggin bu nekk rek am na maanaa boo ci soxla boo xam ne ci moom rek nga ko mën a amee kes may faayil ko nit nga yóbbu ko ci ismu faayil wal mafuun ak nga yóbbu ko ci ismu mafuun wa ismu tafdil nga yóbbu ko afdalu afala tafdil wa tasniya wala nga yóbbu ko ci musanna wal jami wala nga yóbbu ko ci jamu ilaa xëy zaalika ba dul ba ci lu dul loolu xam nga ne jamu muslimaani teggin boobu rek moo la mën a may jamoo bi na teggin boobu rek moo la kii kon muslimaani teggin boobu moo la mën a may tasniya muslimoona teggin boobu moo la mën a may jamu soppi baadi yóbbu ko ci teggin yu wuutee ndax am maanaa yi nga soxla noonu lañ koy defee boo koy jëf loolu wa bil maana ilmi ci maana xam-xam maanaam lan mooy sarfu boo ko bëggee xam te jëfe jëfewoo ko waaye pourtant boo ko bëggee xam ak boo ko bëggee jëfee sorewuñ parce que li nga xam rek moom ngay jëfe moo tax mu ne boo ko bëggee xam ilmun xam-xam la boo xam ne ilmun mooy xam bi usulin ci ay cosaan yoo xam ne yoona fu danañ xamee bihaa ci moom axwaalu abniyatil karima meloo tëggini baat yi allati yi nga xam ne lay sa nekkut bi inrabin ci inrab wala bina in nekkut binaa xam nga niñ koy defee mooy nga jël baat soppi ko ci tëgginam yóbbu ko beneen tëggin soppiwaat ko foofu yóbbu ko beneen tëggin tëggin bu nekk dafa am maanaam boo soxla boo xam ne moom rek moo la ko mën a jox moo tax nga changé ko noonu loolu moom mooy noonu lañ koy noonu lañ koy jëfee waaye nag bu dee nga ko bëgg xam da ngay xam usul yi cosaan yi baat yi nga xam ne nii ci ngay xamee nak ngay tëgge baat baat boo ko bëggee tëgg ismu mafool ñu jàngal usul bi ne mooy mafoolun ismu faayil ñu jàngal usul bi ne faayilun dégg nga mu daayoo ñu jàngal usul bi ne la yafalu la war doon bu dee nii la wala yafilu wala yafalu loolu mooy xam-xam boo xamee cosaan yi nga xam ne nii ci ngay tëggee façon baat yi su loolu mooy xam sarf nga mën a def loolu nag baat boo gis rek nga man koo delloo ci cosaanam loolu mooy jëf ji kon xam-xam bi mooy nga xam cosaan yi nga xam ne nii ci ngay tëggee baat yi ismu mafoon boo ko bëggee baat boo ko bëggee tëggee ismu mafoon ban askul la mafoon la boo ko bëggee tëggee ismu faayil ban askul la faayilun la boo ko bëggee teg tëgg mu daaro ah, bu dee formule la mu daaro mi yëpp fonu la amru bi au fond la bu dee faayil la mu daaro bi yafaalu la ci lu ëpp amru bi ifaal bu dee faayil la mu naa nekk yafalu léegi nga xam usul yooyu nag xam baat boo gis rek boo ko bëggee changé naka lañ ban aslu la ñuy sukkandiku ba changé ko aslu kalima bi yooyu nga xam ko façon tëgg yooyu kooku mooy xam sarf man ko jëf nag mooy baat boo gis nga jël ko delloo ko ci ay am ci maanaam nga comparer ko as usul yi cosaan yi delloo ko ci li nga war a doon baat bi nga jël ko yóbbu ko ci faayil mu faayil ismu mafuul mudaari amru mu mushabba bi ismu faayil bu dee la war a am wala nga yóbbu ko ci zarfu zamaan ak makaan mais loolu da ngay xam aslu yi ba pare doo ko mën a utiliser loolu moom mooy kon sarfu bi amali mooy nga toj baat bi bi maanaa elmi nag nga xam noo koy tojee usul yooyu nga xam ne mooy topp xaar yi tëgginu baat yi nag du inraab du lu ñuy binaat maanaam na muñ ci ne masque baat bi nga xam nuñ koy maasee ci rafaa ci na sabak jar wala boo da bàyyi baat bi ci benn masque du soppeeku mu ne déedéet sart loolu tax ko jëmmi baat bi naka lañ koy tojee loolu ngay xam loolu mooy xam sart nga mën koo toj nag di ko toj jël baat carrément toj ko yóbbu ko fii jëlee ko fi yóbbu ko fële loolu mooy jëf ko waaye nam muñ ci baat bi nuñ koy maasee loolu naxu moo koy jàngal <clears throat> wa mawdu temba al alfaadul arabiya mooy baatu arab yi sarfu ci ban tem lay wax baati arab ndax sarfu du ñëw ci olof anglais français يوي تخكو جي بات عربي كو تخجي من حيث تلك الاحوال تي كم يوي بات من بولا وسي كم يوي ملو بات عربي تي لاي دوخ واي دا فاي دوخ تي ملو ييغا خامني دا فاي فين تي بات عربي ملو يي موي لان موي ملو تگيني ووتي حالي تگيني ووتي بن بات عرب من نا وير من نا رغ من نا ام لو خامني عرف يو خامني لول لا سي بيت ak rab yoo xam ne cosaan la ci biit yooyu la saf di jàngal nag baat bu nekk it moo xam wér naam ràgg na nak nga koy soppee ak boo koy soppi loo cee dagg ak doo ci dagg daraam ndéet yooyu la lay sarfu jàngal xaal yooyu di feeñ ci baat arab yi loolu lay jàngal kon thème bi mooy baat arab yi lam la cee jàngal mooy xaal yi nekk ci baat arab yi kas ci xaat ndax dafa wéram wérul wala in laal dañ ko ragg ràggalam ràgg duñ ko wala asaala xaraf yi cosaan la wa ziyaada ak xaraf ndollal yi yooyu la lay saf di jàng wala xawaar yu mel noonu mooy ismu faa'il ak ismu maf'uul ak kon baati arab yi la lay jàngal lu la ci jàngal mooy xaali baati arab yi maanaam melo yu wuute yi nekk ci baati arab soppeeku yu wuute yi nekk ci baati arab gis nga li ma leen waxoon léegi yaakaar naa mu bëgg a feeñ mooy ni mu jàngalee moo gën a fasul ni borom mabaadu sarfi jàngalee pourtant li mu wax lépp bari na waaye borom mabaadu sarfi wax na la ko ci lu mooy علم يبحث عن تحويل الكلمات من صور إلى أخرى تبعا للمعاني المرادة لو ريم هو حاجاتي صرف موي خم خم بولي جانغال موي سوبي بات بي جيلي كو سي مروكان يوبو كو سي بنين مروكان غير ام مانا ييغا سوخلا لول دي مومو نيك دي واخني نان بوغي ييف دا ngay تج بات غا خم كو موي غا خم دي ngay changer بات دي تيم بي مي واخ موي بات عربي حالي بات عربي مان سوبي كو بات عربي شي ويرك راغ كارف ندول حرف يوك nee na lay jàngale pourtant li la wax mu la wax benn la waaye moom jàngale moo gën a tos kon jàngal na lan mooy sarf mu ngi lay jàngal fan lay dugg comme ni la ko Mabadiou sarf yi dugg jàngale woon mu ne waxtasu dana jagoo moom sarf bi asmaani mutamakkina ci isim yu ñuy inraab wala afaal yu mutasarrifa ak faalu yu ñuy sarf li nga waroon Mabadiou sarf dafa ko teqale wan na la isim yu ñuy inraab mooy bu ma a refaanu sab jar rek. dañ koy soppi nañ koy soppee mooy def ko mu xar musana jamu nisba tasghir isim bu man loolu lañ koy soppi borom mbaadu sarfe jàngal na ko moom ma def na isim yi ñu araab rek xem foofu fi'al mutasarrif waxul la mooy lan waaye fi'al mutasarrif antum wana ni Nah, hmm? hmm. فعل mutasarrif moy fi'lu bo xam ni man na nek madi mudara amr du lol la borom ba di jàngaloon moom na mo len fi'lu mursal bi ci lay dugg way waxul la mom moy te moy fi'lu bu ma nek madi mudara amr nga gis ci ne mom mo gëna a fasu jàngale kon wax na la fan lay sarfu di dugg mooy ismul mutamakkin ak fi'lul mutasarrif ci bobu la wax fan la du dugg borom ba di sarfi daf ko tekkali wax la fu du dugg mooy ismu xeyru mutamakkin mooy ism bu ñuy binaar bu ngeen delluwaatee ca duruusu luxati ci juzu saalis ba andi na façon ismu yi ñuy binaar yëpp ndeysaan façon ismu yi ñuy binaar yëpp bépp ismu bu ñuy binaar sarf du ci dugg ak fi'lu jaamit mooy fi'lu boo xam ne du am maari mudaaru amru dina am na maari mudaaru waaye mënul am amru fi'lu jaamit la kooku sàpp du ci dugg dégg du dugg tamit ci xaraf ba la waxee ne ci isim bu ñuy arab ak fi'lu mutasarrif lay dugg nga mën a comprendre ne kon du dugg mukk ci isim bu ñuy binaal du dugg ci fi'lu jaami du dugg ci xaraf kon waxal na la fi'lu yi muy dugg ak yim du dugg ci ñaar ñaata baat juróom <laughs> juróomi baat da waxtasu dana jagoo bil asmail mutamakkina ci isim yi ñuy binaal yi ñuy irab wala afaal mutasarrif ak faal yi ñuy sarf jumla bu gàtt boobu borom ma baal ñu ay darsu la ko def wamaa warada ak la rod na mu ne wamaa warada la rod na comme que wax na la ci isim bu ñuy irab lay dugg nga gis isim bu ñuy binaal ñu def ko musanna te isim nañ koy sarfoo mooy def ko musanna ak jamo mu ne déedéet warada la rod min tasliyati baadi asmaa yi ci def giñ def musanna lenn ci tur yi al mawsuula yi nga xam ne ismu mawsul la wa asmail ishaara ak isim yu junju wa jamia ak def leen jamu wa tasxiiriya ak ndawal leen kooku fa suuri yun ka jug melo la laa xaqiqi yun du dëgg-dëgg maanaam boo gisee ismu mawsuul ak ismu ishaara ismu mawsul mooy lazi ak lati ak mbokkam yi hada mooy ismu ishaara ak mbokkam yi musanna gañ leen def forme baat bi moo bindoo noonu tekkul ne dañoo toj mufrad bi def ci musanna loolu mooy suuri musanna xaqiqa mooy boo xam ne mufrad la woon ñu yokk ci alif ak nun wala yaa ak nun bu na war a mujar yaa ak nun bu rafaa alif ak nun ngir ci def ko musanna loolu mooy musanna goo xam ne xaqiqi la dëgg-dëgg la amma baat boo xam ne nii la ko arab yi tëralee loolu mooy aslu wadi yi cosaanu bi tëral ba mooy nii allazaani mais jugeewul ci lazi loolu musanna la waaye suuri la form bi moo nekk forme musanna mais nekkul ne dañ koo xottee ci mufrat ba mu nekk musanna kon ismu mawsul ismu ishaara yooyu nga xam ne ñoo ni binaal nga gis ci musanna mu ne noonu la ko arab yi tëralee ci cosaan loolu yooyu cosaan la te pourtant musanna goo gis du cosaan lay cosaan ci ismu mooy mufrat moo tax soxlawul màndarga musanna maanaam banqaas moo soxla mandarga moo tax ñu ne boo ko bëggee def tasniya lii indi mais lay cosaan ci ismu mooy mufrad lay cosaan ci ismu mooy mu nekk muzakkar moo tax ismu muzakkar soxlawul mandarga mu annas moo soxla mandarga parce que moom banqaas la lay cosaan ci ismu mooy mufrad lay doon muzakkar lay doon mooy cosaan léegi nag ci muzakkar lañ jëlee mu annas def ci ay mandarga pour wane léegi bii moom jigéen lañ ci namu def ci ay mandarga pour wane musanna lañ ci namu waaye ismu mawsul ismu ishaara lay firi musanna ci ñoom noonu lañ ko tër noonu la juddoo noonu la baat bi juddoo ko defee loolu la bëgg a wax foofu ne boo gisee daal baat boo xam ne dañ koy binaal ñu def ko musanna wala jamo bul yaakaar ne mufrad bi lañ def musanna ak jamo baat bi moo juddoo noonu loolu mooy fa suur yun këjug mel loola xaqiqi waaw waaw de ka ko teg nag moom xam-xam sarfu mooy muaz bu muslim alxarraa بتسديد الرأي لجنة الدراجي وقيل وانا سيدنا علي كرم الله وجهه سنسان علي الليالة الكرم موتك قم قم صرف معاذ بن مسلم الحراء لن يوحنا موادف الصرف من سيدنا علي موكرف أي وإما سلام مويلن موي قدايا وإي أتيم التي يخلن تذكر ذلك كتب فيك من صريحا يتدكم لير ناني أو دمنا ولن يجفيكو بان كتب نحوكم ينه dana andi yu mel ci biir téere bi kullu waawin bépp waaw aw yaa in wala yaa taxarrakat maas wan fataha mu fataha maa qablaha la ko njëkk xulibat dañu soppi waaw gi wala yaa alifan waaw yaa fuñ maasee la leen jiitu fata soppi leen alif pourtant loolu moo indi xawifa xam nga waaw gi maas kasra la ko jiitu fata waaw gi koy soppi alif muy muy xaafa hayba ragal na waa yaa gi maas na kasra la jiitu fata kon yaa gi soppi ko alif muy haaba bayaa jaay na nga ne yaa gi maas na la ko jiitu fata soppil yaa gi muy baa xaafa ra kii kon lade hmm, euh, xaala wax na xawala la xoon kon waaw ak yaa buñ maasee la leen jiitu fata buñ maasee nag duñ mën a maas yaa la buñ maasee la leen jiitu maas nag mooy du sukkoon xam nga bay on kenn saasoo waaw bu maasee waaw ak yaa buñ maasee moo xam fataa wala kasa wala dàmm xam nga taala tawu la la woon tawu la dàmm la maas waaw bu maasoon la ko jiitu fataa nga ne taala baa bayaa la woon xam nga yaa la maas la ko jiitu fataa nga nga soppi ko alif muy baa xaafa xawi fa la kon waaw ak yaa buñ maasee mooy fataa wala wala wala wala ñu kasra wala ñu fat wala ñu damm la leen jiitu fatha waaw geeg yaa ngi dañ koy alif loolu léeg-léeg nga wax ko léeg nga def ko boo ko defee mu nekk sarf a yi mooy moom la na mu ci dimnan nga def ko mu nekk sarix loo tudd nga wax ko kon mu nekk sarix loo tudd kon masal yii mooy masalaay sarf attey sarf yi nangam bu nangamee nii lañ koy nangamee nangam bu nangamee nii lañ koy nangamee nit ki ne waaw ak yaa buñ maasee la leen jiitu fataa dañuy soppi waaw gi yaa gi alif moo xam da nga koo wax da nga koo jëf loolu mooy masala yi sarfu di dox wa nax waa nga ne isa camaan bu dajalee al waaw waaw bu dajoo al waaw waaw wala yaaw ak yaa wa subi xan ñu jiital ixdaawuma benn si ñoom ñaar bi sukkooni sukkoon xuli ba changé nañ al waaw waaw gi yaan muy yaa wa uddi ko fil ci yaa gi beneen xaayida googu mën nga koo jëf mën nga koo wax mu nekk sarix boo ko jëfee mu nekk dimni mu ne waaw ak buñ dajee bu jiitu sukkoon moo xam bu mën a doon waaw gi foofu ñu soppi ko yaa après idgham ko ci yaaga loolu moo andi maqduyun maqduyun du waaw ak yaa daje nañ bu jiitu dafa sukkoon mooy waaw kon waaw googu foo ñu changé ko yaa sidd sadda ko ci beneen yaaga mu nekk maqdiyun waaw ak yaa buñ dajee bu jiitu bu mën a doon bu jiitu bu sukkoonee waaw ga fu mën a nekk soppi ko yaa idgham ko ci beneen yaaga dégg loolu qaayida la kon loolu masala yi ci lay sarfu di wax masala yi dana ko indi wax ak saa nii la demee masala yi nga xam ne ci lay sarfu di wax naan nangam nangam bu nangamee nangam la ñuy doon kooku mooy kooku mooy masailam wa samratu meñ itam sawnu lisaani mooy wasila meñ anil xate yi ci njumte fi mufradaati ci benn benn baat yi xam nga li muy jëriñ mooy téye sa làmmiñ ba doo juum boo bëggee tey <laughs> jaraa nga bëgg ko rek ismu mafoon boo xamee sarfu da nga ko mën a def doo juum bu dul loore mën ngaa majruuyun daal di juum wa muraatan ak sàmmwanteeg xaanuna luxati luwaaw lang fil kitaabati ci bind sarfu dafay tax nga mën a sàmmwanteeg luwaa bi lang bi tëral booy bind mu wér doo juum boo xamul sarfu mën ngaa bëgg def def maqdiyun nga bind maqduyun dal di juum nga sim daadu fa mu jëlee xam-xam na fa muy min kalaami laay mooy wax yàlla taala kawe na wa kalaami rasulillahi wax yonente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam wa kalaami arabi ak waxi arab ci alquran ak sunna ak ni arab yi doon waxee ci ren jëlee sarf moo tax sarf ak naxu dafa ñëw pour dëggal alquran ak leeral ko waaye ñëwul pour weddi alquran ndax ñoom ci alquran ni alquran waxee ak ni sunna waxee rek dañ naan jëlee seen xam-xam wokku mu saare ateb aji aji soobu fii ci moom al wujubul kifaaya mooy war a kifaaya mu ne daal xam xam-xam sarfu fardu kifaya la bu ko ñepp baye ñepp bokk am bakkar bu ko ñen ñi taxawee nak wacce ñu def ndax ko mu sarfu léegi tay baal yu bari <coughs> yàqu te baat yu yàqoo mana yàqu manam duñu la leral manam alquran yi sunna ndax bo xamul façon bi do xam manam bi deug deug lu ci nam <coughs> arab mom mu na wax am nga xam-xami arab ba xam am nga xam-xam ci lo ci arab ko bind te deggo sarfu deggo naxu mënu nek wala am ñeetu jamo bina waaye mu hayatul kalimatu mooy melo baat bi al malxuusa buñ génnee ko al abniyatu mooy binaa mooy façon bi baat bi mel tey kataba tëgginam mooy faala kaatibun tëgginam mooy faaxilun xam nga ne façon yi bii ñetti fataala bii fataala ay alif buñ ci ko kasra loolu mooy abniyatu tëgginin mooy façon baat bi ni nga ko gisee noonu min xarakatin ci masque yi ni mu toppalantee wa sukuunin ak sukuuni wa adadi xuruuf ak liimu xaraf yi ñaata la wa tartiib ak ni ñu ko toppalantee hmm? ban nga war a jiital faaxilun xam nga fataa nga war a jiital teg alif guñ ndollal teg kasara teg euh, mujj gu moom moom bi ci naxu lay del kon baat bi nii boo xoolee ci masque yeeg sukkoon yeeg ñaata xaraf la ci loolu ngay xamee ne baat bi tëgginam lii la dégg nga hmm? te kaati bun tamit ku ne ku ne xam ne ne alif gi moo war a nekk si digg ba moo war kon faaxilun lañ ko war a tëgg boo ko tëggee lu loolu rek toppalante ko boo maanaam boo commencé woon ci faayilun nga commencé ci lu loo xaqal na lan du baax wal kalimatu baat nag lafzun baat la mufradun bu wéet baat mooy benn baat comme muhammadun kaatibun qalamun loolu mooy baat wadaaw teg na ko alwaadi ka ko teg lee dulu ngir mu tegtela a maanaam ci maana baat dafa ñëw pour tekki maana daay su ma taam ma zukkira nga xam ne saa ñu tuddee zaalika lafz boobule baat fu ma dégg na mi ci moom zaalika maana boobule maana al mawdu biñ moom la ko ñeel boo tuddee baat boobu ñu dégg ci maanaa boobu tey arrajulu buñ ko waxee dañ ko ñëw dañ ko tëral ngir mu tekk ab góor goo xam ne mag la soo tuddee arrajulu rek ñu xam ne góor goo lañ ci nam léegi nag nañ ko maasee loolu mooy tëggin ba ak nañ jiital ak xaraf ya nu toll ak xaraf yi nga war a njëkk teg si yeneen yi loolu mooy tëggin bi kooku fa'ulun lañ ko tëgg rajulun fa'ulun waaw ku ne xam na ne masque bi ngay njëkkee teg ci daamu gi fata bi teg ci daamu gi door andi mujj ga dégg nga ku ne xam na ne kooku ñetti xaraf la ay masque kese la amul sukkoon dégg nga xaraf yi ñett la loolu moom mooy tëggin ba su ko defee baat bi dafa ñëw pour tekki góor goo xam ne mag la suñ ko waxee rek fu ñu ma dégg ne ministre moom zalika maanaam bu ne maanaam al mawdu buñ tëral moom la wàññeel ko loolu moom moo di sarfu نور الإسلام أسلمت ما توفيق إلا بالله عليه توكلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته